dal leen ak jàmm mbokk internet yi xibaar ci mbirum Hiba Thiam mile police bi ñu waxoon ne moom moo leen jotoon a escorté yóbbu leen ba fa ñu jëm wax na moom police na ne te li mu def teguwul ci yoon waaye nag indi na ci ay na la ko war na kii di Hiba Thiam dina des di dund ci bi ñu waxoon ne moo leen doon escorté mu ngi xam le ne ma nga nekkoon ca Kër Massar ci journée ca bésub vendredi bi yëpp ba ca waxtu 20 ca la ko woo téléphone ka ko woo di Hiba Thiam mi nga xamante moom mi ngi xam xam le ne gëjoon na ko dégg gëj koo gis moom policier ba di xam le ne kile di jaja daf ko wax na ko dimbali ngir mu mën a génn ci waxtum couvre-feu bi woo ko ay yoon yi yoon di insister ngir mu dimbali ko ca la policier bi di Lamine Diédhiou daal koy escorter gunge ko ba ca aéroport bu Yoff ak motoom jaja moom ma nga nekkoon ca biir woto woo xamante ne nii weer ya dañ koo tente maanaam kenn mënta gis la ca biir policier bi di Lamine Diédhiou di xam le ne ci yeewu rek ñu bàyyi ko mu jàll ak kile di jaja polise bi ne moom xamul sax kat mooy Iba Thiam te ba mu leen gunge ba ñu yegg fa ñu jëm kile di jaja jox na ko lu toll ci vingt mille francs ngir mu jënd carburant cay lii doy na waar ngeen fekk na lii jar na ko ab polise bu jalgati liggéeyam yàqu ñu nar koo summi ci vingt mille francs dong tës lii de mooy mar naan bu la taxee naan petit bu robinet tijjee nga rus waaw këy polise ba Lamine Jeeju nee na nangu na ne lii mu def teguwul benn yoon ci yoon waaye dimbali jaja dong moo ko taxoon a jóg ndax daf ko wax ne ko bëñam dafay métti bu ñu ko ci kàddub gardien ba nag ki lee di jajaa ak Iba Thiam ñoo yegg seendoo foofu te ab policier moo leen gunge ba foofu ak motoom fi ne nag dossier bii ñu dénk juge du huitième cabinet mi ngi gën a leer ndax ay mbóot yi ci suddeeku ci ay bés yi ñu weesu looloo tax ñëpp am njortu ak yaakaar ne lépp dina leer waaye nag mel na ni li ci nëbb moo ëpp fuuf li ci jot a feeñ lu ci mënti am moom Iba Thiam moom ndeysaan dem na yóbbaale retaanam ju neex ja bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki lee di poupette ca ba muy jàkkaarloo ak yi mi ngi wax ne man xabaar ma li xew ca laa dem di xool kile di Iba Thiam waaye na ma ko fekkee ma nga tëdd jaaxaan xar kanam ba boo ko xoolee ma nga mel ni kuy muuñ waaye gisuma ci moom ak li ko wër benn takk-takku pëndëx bu weex bi maanaam dorog waaye boobu fekk dem naa teg leen seen baaram foofu ñu dem te ñëw indi leen ci yeneen xibaar jër ngeen jëf